Serigne Modou Sow Ba Serigne Modou Sow Ba mi ngi gane àdduna ci atum 1834 ci dëkk bu ñuy wax Ndiob Ndiob mi ngi ci région du Louga ci suuf sii di Njàmbur Serigne Modou Sow Ba doomu Serigne Sayar Bala ak kii di soxna Fatma Jaw sëriñ Modou Sow Ba am na ñum bokkal soxna Fatma Jaw muy ku ñuy wax soxna maam Gànna Ba ak soxna Daba Fatma Ba ak soxna Faaxujja Fatma Ba ak kii di soxna Ami Fatma Ba ak moom sëriñ Modou Sow Jaw Ba ñoo bokk seen waajur wu jigéen wa di soxna ma Jaw bi mu matee dal lii di alxuraanul karim sëriñ Moor Galaay Jaw moo ko dalal lii di alxuraanul karim moom sëriñ moo du Saw Ba ginnaaw bi dem na ci sëriñ Moor Majeng Faaloo ci kër ma Majeng Faaloo ginnaaw bi nag dem na ci sëriñ Daaru Hasan Njaay eggalee fa lii di am njàngam maanaam jëm ci wàllu lii di xam-xam ba géeju fa lool moom sëriñ Moodu Saw Ba mi def na fa ñeenti ati yàlla keroog bi ko sëriñ daaru xasan njaay di yeewi nee na ko moodu sow ba li nga jàng ci wàllu alxuraanul karim ak lii di xam-xam mën ngaa dund ba bàyyi koo fi doo ko mën a jëfandikoo ca la ko booleeg nag ñetti doomu aadama ngir bu sëriñ moodu sow ba delloo ci dëkku cosaanam ba man faa taxawal lii di daaray alxuraanul karim ak di jàng ak di jàngale ñett nit ñi mooy ku ñuy wax muudu njaay seex sayar njaay ak abdoulaye njaay ñett ñii la ko sëriñ Daaru Assane Ndiaye joxoon boole koog moom mu dellusiwaat nag ci dëkk bi mu cosaanoo di njobbu nekkit su suuf sii di njàmbur foofu nag la nekkoon di jàng ka ak ñi ko sëriñ Daaru Assane Ndiaye booleel foofu tim la ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim feeñoo mu dem Mbàkke Kajoor fekk ko fa daldi nag jaayante ku baax ki sëriñ tuuba Seexul Xaddim kon ma wax leen sëriñ Moodu Sow ba lu ko indi ci ëttub ku baax ki Seexul Xaddim ginnaaw bu mu nekkee ci dëkkub cosaanoo ñaanam boobu di njobbu di jàng ka jàngale la am bis na ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim feeñu ko booba ku baax ki mu ngi ci dëkk bii di mbàkke kajoor sëriñ moodu sow ba nag dem na ci mbàkke kajoor jaayante ku baax ki ginnaaw bu mu eggee lii di mbàkke kajoor kii di seexub sëriñ tuuba bi di cheikh ma baabu géey la fekk ci mbàkke kajoor wax ko li ko indi ngir gis ku baax ki jaayanteeg moom ngir bokk ci yoon wi di yoonu murit cheikh ma baabu Guèye gunge na ko ba ci ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim keroog bi sëriñ Moodu Sow ba eggee ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor te seex ma baabu Guèye mi doomu ndeyam yóbbu ko ci sëriñ Tuuba Seexul Xadiim fekk na fa ku ñuy wax sëriñ xabdu lay Diop bi muy jaayanteeg Seexul Xadiim kookoo nga fa sëñ Moodu Sow ba sëriñ Tuuba laaj ko ana nga bàyyi ko mu ne ko sama dëkkub cosaan bi di njobbu lan ngay liggéeye mu wax ko jàng ak di jàngale sëriñ Tuuba Seexul Xadiim wax na ko yoon wi ku ci bëgg a bokk nooy mel ak naka ngay doxale loolu lépp itam doy na ku baax kii di sëriñ Modou Sow ba foofu la jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nekk nag ab murit ku baax ki téye na ko fa ay fan daat koy bàyyiwaat nag mu delluwaat ci dëkkub cosaanam bi di njobbu nekk fay jàng ak di jàngale ba ni sëriñ Tuubaa bàyyi foofu ñëw nag ci dëkk bii di Mbàkke Bawal ngir sanc si dëkk bii di Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam sanc nañ dëkk bii di Tuubaa sëriñ Tuubaa bàyyi na fi dem Mbàkke Baari ginnaaw bi nag la bàyyikoo ko Mbàkke Baari dem ci géej gi ci réew mii di Gabon sëriñ Modou di njobb ginnaaw bu seexul xaddim demee ci géej gi sëriñ moo Modou Sow Ba jóge na njobb nag ngir ñëw nekk si ci dëkk bii di Touba ngir xaar fi ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim jaar na ci dëkk bii di diiwaan silla ci kër sëriñ Paate Silla moom diiwaan silla atum la fa def ginnaaw bi nag la bàyyi ko diiwaan silla ñëw nag ci dëkk bu sell bii di Touba ngir xaar baax ki sëriñ Touba seexul xaddim mu nekkee Touba mi ngi nekkoon fi ñu tudde woon wen jullikaay diggante armeer yi ak jumaa ji la nekkoon ba ni sëriñ Tuuba seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ci le 11 novembre 1902 bi seexul xaddim ñibbisee comme ni ko seex sépp defee moom def na ko ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddim seexul xaddim di ko laaj Moodu Sow ba fan nga nekk mu di ko xamal ne bi nga demee ci géej gi laa ñëwoon ci dëkk bu sell bi di Tuuba di la fi xaar ginnaaw bu ko seexul xaddim laajee fan la nekk ci Tuuba mu di ko xamal ci bërëb dëkkukaay seexul xaddim wax na ne ko bërëb boobu daal du bërëb bu dëkkukaay ci la nag tuxoo ci penku li nga xam ne nii moom mooy armeer yi mooy foofu nga xam ne nii moom mooy surra amoon na fi sax suuf si yaatu ba li ñu tudde am pénc sax amoon na ko fi pénc mi wala kër gi moo tollook fi station bi nekk ci penku armeer yi tollu jàpp fi njabootu cheikh abdou xaadir mbàkke gi dëkke jamono ji ci tuubaa surra ci diggante boobu itam la péncam mi nekkoon ci bërëb boobu 1964 bi ñuy natt dëkk bi la sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wax njabootu sëriñ Modou Sow ba gi nañ gën a àndu fi tolloog ci biir surra ci boori kàdd ga kon loolu moom moo leen jële foofu loolu itam moo far lii di pénc ma boole koog nag moom sëriñ Modou Sow ba muy baye fi armeer yi nekk muy armeer yu yees yi ñu tudde ya foofu itam amoon na fa suuf di fa baye ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñibbisee amaan na fi nag lii di takk-takk takk ak mbaaxaan tubaab bi dugg ci ñu convoqué waat ko yóbbuwaat ko nag ci réew mi di gànnaar ci beneen résidence surveillée gànnaar googu sëriñ du Sow ba dem na fa ñaari yoon ci diggante 1903 ba 1907 yoon wu njëkk wa bi muy dem menn moom kese moom moo ànd yitaale nag seexul xaddim sërica bu duun sërica ba ràññee nañ ca lii di ay xalima keroog bi mu eggee ba seexul xaddim laaj ko Moodu saw ba xanaa jaaroo dagana ba yëg ndigal la ma fa bàyyi yi woon sëriñ Modou Sow ba di xamal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim ne ko jaaru fa namm gum ko namm ak cofeel gum am ci moom moo tax mu jaare ci wetuk podoor gi sëriñ Touba Seexul Xadiim laaj na ko nag sëriñ bi lii di xalima yi lan la ci jublu mu di ko xamal ne dab sag bànneex wala sag bëgg Seexul Xadiim keroog wax ne ko ne lii di sama bëgg daal sëriñ Modou Sow ba dab nga ko tey jii ñaanal ko ginnaaw ñaanal googu sëriñ Touba Seexul Xadiim Modou Sow Ba ana waa réew moomu di Sénégal ak sama dëkk boobu di Touba sëriñ moo Modou Sow Ba nee na sëriñ Touba waa senegaal ñang fa sa waa dëkk ba di Touba ñang fa di la namm rekk waaye Mbàkke Balla ñun de ñang fa di dëkk xuloo ak xeex rek Seexul Xadim laaj na ko Modou Sow Ba lan moo tax ngeen dëkke xuloo ak xeex rek sëriñ Modou Sow Ba di ko xamal ne nit ñi daal dañ ñuy cokkaas rek duñu wax ne ka ngeen yaakaar dem na naax saay na te leen ko gisati naqari ci ñoom moo tax ñuy dëkke xuloo ak a xeex rek sëriñ Touba seexul xaddim di ko xamal ne Modou saw Ba mënu leen a def ne man dëkke lii di muñu rekk sëñ Modou Sow Ba di wax seexul xaddim ne ko loolu mënuñu ko ndax yow li nga man mbàkke bàll ñun mënuñu ko te saa su ne suñ ñu waxee danañ tontu te su ci xeex waree danañ ko def seexul xaddim dolli waat wax ja sëriñ Modou Sow Ba di ko xamal ne lii di sama julli géej gi dégg ngeen ko sëñ di ko wax tey dégg nañ ko te gëm nañu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ne ko Moodu saw ba am na de julli naa ci géej gi waaye bi ma koy def puukarewu ak lii di wanewu taxul woon ma def ko dama xam ne ndigal la lu ma sama boroom sant te ilallaahi minallaahi rek moo tax ma def ko julli géej googu ko Seexul Xaddim li ci gànnaar ci dëkk boobu di xumaak kii di sëriñ Moodu Sow ba daana ko nettali lu baree bari na Seexul Xaddim moo ko ko wax ci gànnaar mu téye nag la ko ñaanal sëriñ Modou Sow ba bàyyi ko waat gànnaar nag ci dëkk bii di xumaag ñëwaat nag ci réew mii di senegaal wéy nag di bay ci toolam yi di bàq ya foofu nag la am benn sàmm bu fa nekkoon kun doon wax sàmba cókkeel sàmba cókkeel mi mujj na sax jébbalu ci sëriñ Modou Sow ba mi waaye laata muy jébbalu su soosu sëriñ Modou Sow ba doon bay di bàq ya neexul woon kii di sàmba cókkeel ba tax na lii di ab liggéey wala jaraloon na ko kii di sëriñ jóge ci suuf soosu di Baqiya keroog bi muy jaayante ak sëriñ Moodu Saw ba mi la ko wax ni man de ku ma jaaxal nga man Sàmba Cokkeel sëriñ Moodu Saw ba ne ko lu xew mu ne ko man daal bay gi nga fi doon bay ma ba tax na reenu garab gu ma masaa gas ngir bëgg koo dagg ngir bëgg caa defub liggéey ngir nga bàyyi suuf si reen ba di ma tuddal saw tur loola daal ci laa demee ba xam ne yow mii daal nituk suñu boroom nga loolu itam moom moo tax tey jii ñëw ngir jaayanteeg yow ngir bokkitim ci sag njaboot ndax xam naa ne doo moroom sàmba cókkeel mi bi mu làqoo bokk na ci ñi njëkk a denc ci armeel yooyu di bàq ya ak beneen sëtub sëriñ moodu saw ba ñu di ko doon wax sëriñ mustapha ba sëriñ mustapha ba mi biñ ko fiy denc booba cheikh abdoulahat mbàkke miire na armeel yi ba noppi sëriñ moodu saw ba jàppaat na waneen yoonu gànnaar ngir fekkiwaat ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim yoon woowu ba muy kii di sëriñ Ibra Joor Amar ànd naa moom ak kii di sëriñ Gumma Amar ak moom sëriñ Moodu Saw Ba ci yoon woowu ku ñuy wax sëriñ Ibra Kebe Lumbe yóbbante woon na leen ab ziyaar ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kon loolu mooy ñaareelu yoonu gànnaaram ginnaaw gànnaar googu itam toogaatu fa daa ñibbisi waat xaaraat ku baax ki ci réew mii di Sénégal rawatina ci dëkkam bi di Touba ci atum 1907 la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bàyyi koo gànnaar ñëwaat ci ñetteelu résidence résidence surveillée wala ci ñaareelu résidence surveillée ci dëkk bii di ca Ceyeen Jolof Ceyeen googu daana ko fekk di ko ziyaare ji ginnaaw bi seexul xaddiim demaat njaareem ci beneen résidence surveillée kii di sëriñ Modou Sow ba daana ko fa fekk itam di ko ziyaare sanc na nag ay dëkk moom sëriñ moo Modou Sow ba ñu ràññee ci dëkk bii mu sanc nekkit ci suuf si di njàmbur ñu di ko wax ngunju roñaan wala ngunju rañaan ak suuf si mu amoon ci Touba di pénc mim nekk jàpp station bi nekk ci penku armeer yi pencam moomu kilifa yu baree bari ci biir réew mi rawatina ci yoonu wii di yoonu murit fekk nañ ko fa ñu ràññee fa maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke wala réem la woon ba sax moom sëriñ Moodu Sow mi tudde na ko lii di doom ñu ràññee ci kii di cheikh Masamba Mbàkke cheikh Mamadul Bachir cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke cheikh Mamadul Lamine Baara Mbàkke ndax ñoom ñaar sama nijaay lañ ko daa woowee ndax waajuru sëriñ Aminata Lo la miy waajuru cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak kii di cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke kii di cheikh Mamadou Fadal Mbacke dem na fa cheikh Abdou Lahad Mbacke cheikh Abdou Khader Mbacke Serigne Saliou ak mbooleem njabootug seexul xaddiim gi kii di seexi Serigne Touba seexul xaddiim itam ñi ci bare bari fekk nañ ko ci dëkk boobu wala ci quartier boobu di sura kii di cheikh ma baabu Guèye ku amoon wëllëre la ak kii di Serigne Modou di pénc moomu ay yoon seet si ko foofu nag la des nag ci Touba di liggéeyal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim kii di sëriñ Modou Sow ba am na nawet boo xam ni da ko bay ba mu ñor nawet ba toolub dugub la woon mu boole kooku oto bu mu jënd ak chauffeur bu ñuy wax Alioune Touré jébbal ko ku baax ki sëriñ tuuba Seexul Xaddiim ci njaareem sëriñ tuuba fob dugub ja denc lu ko ci kër gu mag fob lii di oto ba ak Alioune Touré jébbalaat ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke ci Touba Alioune mi ba nëgëni ak njabootam ñi ngi fàttaliku wala wutal nañ ko lii di ak màggal ngir barkeelu seen waajur wi sëriñ moodu Sow ba joxoon sëriñ Touba Seexul Xaddim addiya màggal gi ñu ngi koy amale ci dëkk bu ñuy wax Kër Mbay Awa Kër Mbay Awa mi ngi ci département bu Linguère doomam jii di sëriñ Moussa Touré moo koy amal ginnaaw bu sëriñ Touba amee ñetti at ci dëkk boobu di njaareem tombeeg muy 1915 sëriñ Modou Sow ba gas na lii di ab teen ci tuubaa ba teen ba bënn mu tànk ca ndox ma yit ko ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim teen bi moo tolloog fi gaar bu ndaw nekk foofu la teen bi nekkoon seexul xaddiim santaat ko gërëm ko di ko xamal ne Modou Sow ba sama dëkk boobu di tuubaa de bu ñépp defoon na yow duma sonn ña fa nekk itim duñu jaaxle teen bii nekk itim ci buntu armeer demoon na ba dëy maanaam lii di ndox mënatu ko woon a génne sëriñ Modou Sow ba moo waat ak yeneen ak yeneen ndax dëkk bii di Touba musta nangu benn yoon dara lu koy jagal manqué fi noonu itam ni la ko toppoo di ko sàmm ba ni fi sëriñ Touba seexul xaddim bàyyi ko ci le 19 juillet 1927 mu jël léppam jox ko taawu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim di mu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke di nijaayam ndax noon la ko mu Modou Moustapha Mbacke daa waxe sama nijaay mu taxawu kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke defit lu am solo solo ci xilaaf ak cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ndax bi ñuy gas lii di raay bi ñaar fukki nit ak juróom ñaar la ko joxoon ñoo ñu sax ñoo wéy ginnaaw raay bi bi mu noppee ñu continué nag ànd ak cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ci jumaa ji jumaa ji itam amoon na ci sas comme ni ko cheikh si daa defee heure bu sasam masaa ñëw daana ko matal lii di carrière ba itam ku fa feeñoon la noonu itam ni la ko toppoo ba ni fi cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bàyyi ko ci le 13 ñaareelu xalifab seexul xaddiim bi di cheikh mamadul faadal mbàkke wéy di ko liggéeyal toppitim ci ginnaawam di sàmmitim lii di ndigalul xalifa bi ba ñu inigré lii di juma ji ci atum 1963 ci atum 1964 nag la génn lii di àdduna ci péncam moom mu amoon ci sura ba tey ci liggéeyub sëriñ moodu sow ba kii di sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke wax na njabootug sëriñ moodu sow ba na leen ci dëkk bu sell bii di tuubaa de ku fi sëb néeg masa daanu bu la ko waa kër sëriñ Modou Sow ba yëkkatilut attan na fee noor nawet fi kon dëkk bi di Touba ku fi féete woon la ak lii njabootam moo tax itim keroog bi mu génnee àdduna ñaareelu xalifa seexul xaddim bi seedeel na ko ko ko doomi soxna Fatma Jaw ji ñu gënoon koo xam ci sëriñ Modou saw ba mi ngi génn àdduna bisub altine ñaar fukki fan ci weeru tamxarit ci atum 1384 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ci weeru tamxarit tamxarit ci atum 1384 ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 1er juin 1964 lundi 1er juin 1964 ci pénc mi amoon ci penku armeer yi moo tolloog fi njabootu cheikh Abdou Khader Mbacke gi dëkkee foofu la këram nekkoon ci diggante boobu itim ci biir këram googu la génne àdduna ci atum 1964 kii di ñaareelu xalifab sëriñ Touba Seexul Xaddiim di cheikh Mamadul Faadal Mbacke moo ko taxawu defar ko wax cheikh Abdou Lahad Mbacke ne ko demal jullee ko te gungeel ma ko ca armeel ya keroog bi ñuy denc kii di sëriñ Modou Sow ba mbooleem njabootuk seexul xaddim gi fi nekkoon ànd na keroog ca denc ba kii di sëriñ moodu Awa Balla Mbacke ibnu maam cheikh na Ibrahima faati sëriñ cheikh Awa Balla Mbacke ibnu maam cheikh na Ibrahima Faty sëriñ Hafiya Ñang sëriñ Mouhamadan Jobbe ibnum sëriñ ma sàmba Mbacke ak mbooloo mu takku keroog teew nañ ci denc sëriñ Modou Sow ba biñ ko jébbalee suñu borom ba waat ci kër gi nit ñi di laaj sëriñ Modou Sow ba ñaata at la am ñii naan téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ñaar kenn ku ne di wax sa xalaat mu dul Fadal Mbacke moo ne tonn ca wax ja moo ne bu leen ko wàññi waay kii di sëriñ Modou Sow ba téeméeri at ak fanweer la am moonte noonu ko mu dul Fadal Mbacke waxe bi ñu xoolee atum ba moonte téeméeri téeméeri at ak fanweer la kon jëmm ju baax jooju ci téeméeri atam ak fanweer la génn lii di àdduna cheikh mohamadul faadal mbàkke di ca dolli ne kii di sëriñ moodu saw ba làq na ngërëmul këm doon liggéeyal di sëriñ tuubaa seexul xaddiim làq na kii di ngërëmul taawub seexul xaddiim ba di cheikh mamadul mustapha mbàkke di sama mag ja man mii làq na lii di sama ngërëm ñuy ñaan ci dara jey ka làq ñetti ngërëm yooyu ñetti bantam yii mu fi bàyyi yàlla nañ sut aw fanam muy sëriñ Serigne maam Cheikh Ba mi toog toogaayam jamono ji ak doomam jii di soxna Paala Ba ak doomam jii di Serigne Hadama Ba ak mbooleem sëtu sëriñ Modou saw Ba ak mbooleem taalibey Serigne Modou Sow Ba rawatina murit yeeg jullit yépp ay xalifaam nag nii la tëddee ci atu 1964 ba atu 1968 ca weeru gàmmu ga ku ñuy wax sëriñ Modou Ba ñu gënoon koo xam ci sëriñ Modou Mati Kodd Ba moo ko njëkk a wuutu 1964 ba atum 1979 ca le 15 janvier ba ku ñuy wax sëriñ Moustapha Ba moo nekk ñaareelu xalifa sëriñ Modou Sow Ba ci le 15 janvier 1979 ba ci atum 2005 ku ñuy wax sëriñ Baara ñu gënoon koo xam ci sëriñ Cheikh Ami Ba moo nekk ñetteelu xalifa sëriñ Modou Sow Ba sëriñ Baara Ba mi sax waajuram wu jigéen kii di Cheikh Mabaabu Guèye moo ko meññi ñeenteelu xalifa sëriñ Modou Sow Ba mooy ku ñuy wax sëriñ maam Cheikh Ba moo fi nekk ba jamono ji ñu koy ñaanal mu sut waajuróom wa aw fan eggale naa lu magam yi te taxawu lii di taalibe yeeg njaboot gi kii di sëriñ Modou saw Ba dese na fi nag ni bant ñu ràññee ci rek ku ñuy wax soxna Paala Ba ak sëriñ xaadama Ba ñoom itam ñu leen di ñaanal ñu taxawu seen waajur wa te sut ko lii di aw fan kii di sëriñ Modou Sow Ba am na nag bis buñ koy fàttaliku muy ñaar fukki fan ci weeru tam wi mu génnoon àdduna njaboot gi màggal nañ ko ci bis boobu ci quartier bii mu am ci Touba sura wala fi leen sëriñ Cheikh Mbacke dël ci Touba Soura ba ci xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ci ñaar fukki fan yi tam xarit lañ ko doon màggal bis boobu méngoog bis bi ñuy màggal màggalug Daaru Xuddoos bi njaboot gi demee ci sëriñ Touba seex Salihu Mbacke di laajaat neen bis ngir dawale koog lii di màggalug Daaru Xuddoos gi ñu toxal ko ci ñaar fukki fan ak ñaar Mbàkke di leen wax ni bis boobu de am na solo ndax kii di sëriñ muudu Sow Ba bis bu ne yayoon na lii di ak màggal kon loolu moo waral ñu yóbbu bis bi ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit ñuy ñaan ci darajey xalifaam bi fi nekk di maam Cheikh Ba ak njaboot gim fi bàyyi yàll na yàlla saafara réew mi te tàppe xol yi bi jaayi say dil wujjoot ci képp liggéeykatu seexul xadim bi di sëriñ muudu Sow Ba